بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك يتياو teew جتاي jataay bu tedd bii kenn ku nekk fa nga toog ñoo ngi yëkkati ab nuyoo bu ànd ak ziyaara jox leen sunu loxo di leen naan jàpp seen loxo ne leen yàlla yàlla defal jàmm defal leen ko di nuyu mbooleem ñi fi toog ndax bëgguma lim ñenn ñi bàyyi ñenn ñi waaye ñi fi toog ñépp ak kenn ku ne ndombal tànk yi nga takk ak li tax nga teew fi ak li nga bëgg ci li nga tax nga teew fi suñuy ñaan yàlla defal ñu ko ñoo ngi lay nuyu xam naa ni comme ñaar laa dendal muy ki ñi jiite euh, délégué de quartier ak ñi jiite daara yi kon ñoom ñaar ñoo nekk sama ndeyjoor sama càmmoñ nuyu naa leen jox leen sama nuyoo ñu jottali ko képp ko fi nekk di nuyu Matar Diop mi nga xam ni mooy coordonnateur jataay bi di ko wax mu yoddee sunu nuyoo ki nga xam ne moo tax ñu daje fi muy Abdoulaye Timbo ginnaaw ba nu ko sante moom Matar gërëm ko ci taxawaay bu rafet ak respect bi mu jox imaam yi te loolu may wax noonu imaam yaa ngi nii jàkkaarloo ak moom danaa fi ruus wax loo xam ne bu ëllëgee. ñu wooma ci roq ni ma li nga waxoon li nga wax waru koon a wax kon suñu ko nuyoo mbo dana mboolem administrateur wala ñi nga xam ne nekk na ci ville de Pikine képp kenn ko ci nekk Matar dana la nuyu si dana jottali suñu nuyoo ci moom ndax ànd gi ñu ànd ak Timbo moo rafet moo tax li résultat yi ñu am ñu am ko kon suñu fa jógee nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy yilif réew mi mooy président la république président la république ak stafam moom it ñoo ngi koy jotali nuyoo ndax doolay jën ndox su mataar ma dara wala euh, timboo man dara am na kilifa gu nekk ci kaw di leen jàppale kon ñoo koy nuyu moom itam di ko ñaanal yàlla jàmm ci réew mi di ñaan yàlla jàmm ci réew mi yàlla defal ñu jàmm su ko defee lu tax imaam yi teew fii war naa leer doomu aadama yi li tax imaam yi teew ci danaa am lenn lu ma ci jukki bokk na ci li nga xam ne mbokk mi yor eh, moske grande mosquée bu Pikine bu taaro bi ngeen di gis am na lu mu ci wax am lu mu ci bàyyi mosquée bi keroog bi nga xamee ni jëkk naa dajeeg timbo ti ñu waxtaan ba ba egg ci mosquée dafa wax ni su ma sañoon sama mandat bi balaa jeex ma teg fi benn simbool bu ñu may fàttali boo xam ne du ñu ma fàtte te daañu nekk njariñu Pikine ma ne ko dara tànniwu ci day nga am grande mosquée bu Pikine bu mu nekk digne de la ville de Pikine mune ne ma mu ne bokk naa loolu day sama bëgg-bëgg la bokk na ca la ko wax ma ko man day monde arabe def naa fa plus de 10 ans bu nu àndoon monde arabe day danaa mën a ba yalla may ni ku ko financé mu ne ah loolu de nañ ci xalaat mu dellu yalla def président de la République ñëw ci référendum bi ñii doon wax ñi ngi teew imam yaa ngi teew délégué de quartier yaa ngi teew ñeenti doléance laa joxoon président de république ba sa jiitu ma ne ko danga ñuy jox jumaa joo xam ne bu diiñ la jumaa joo xam ni dafay wuyoo turu Pikine ndax it Pikine département la Dakar département te gis nañu jumaa yi Dakar defal na jumaa joo xam ni Pikine da koy tiitaroo doomu Pikine yëpp gis seen bopp imaam yeeg mboolem ku juddoo Pikine da ci bopp benn doléance ñaareel ba mooy dañoo bëgg tey armeel yii armeel arm nga wutal ñu armeel ndax armeel amutu si dëkk bi ñetteel ba mooy nga fexe ba euh, imaam yi am lu ñuy jot comme seen mbokki délégué de quartier ñeenteel ba mooy nga fexe ba boog lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt nga am local boo xam ni imaam yi dañ fay faral di mën di daje di waxtaan ci département bi tontu ya ci saa si la président yi jumaa ji moom dañ koy tabax su ma fàttalee da da nee na woon sept cent cinquante millions lay njëkk a pour ñu commencé jumaa ji sama kan sunu kanam daane Alaaji Moussa Gueye dana mi ngi teew te du ko tuural nii daañu ko tabax su ñuy koy raase raase ko suñ koy tabax tabax defe naa ne ñoom ñoo ñoom ñi yot jumaa ji ñoo d'accord nañ ko raase tabaxaat ko kon kooku dañu koy sante taxawaayu timbo ndax eh, al amaalu bi niyaat wala kulli ma kulli imri ma li kulli imri ma nawa yéene ju ma amoon moom la yàlla far au lieu muy xaar yeneen yu bare yàlla sotal ko ci saa si ndax boobu yéene jarfet nag kon loolu dana tax ñu sant ci timbo waaye bokk na si la ko président waxoon comme li mu waxoon loo looy defal yow Pikine nag bu ma ko defee lii mu ni mu ni mag ñi day ku leen tabax ku leen génn war nga la wut fu ñuy fajoo ndax wéruñ surtout imaam yi yaakaar naa mbokk mi wax na ko loola nekk la lu am kon loolu bokk na ci looy fierté imaam yi ndax ñun diini ji rek la ñu am ku nu ko fonkal ndax bokk na seen ba ma koy wax ma ne ko ni nga defaree këru diini yi li nga leen joxe seen cër ñun imaam yi mënuloo ñu defar kenn ku ne waaye nag defal ne loo xam ne ñun daan ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp kon mbir mi noonu la demee kon loolu ñu ngi ci sant timboo baax waaye di ci sant président de la République ba sa tegu mooy Timbo li tax imaam yi daj ci dafa ñoo yëg kat yàlla def ne ah bu dul wala tushriku bi shay'a bu ngeen ma ja bu leen ma bokkaale kenn yëg la yàlla bëgg comme yàlla yëg la bëgg nag wax dëgg yàlla ñu nit ki nu yëg daañu ko yëg ti timboo yëg nañu mataar yëg nañu ak ñu staff bi amul lenn loo loo daje bu ngeen di gis lu imaam yi sa dañuy nekk amul benn daje boo xam lu imaam lay yëkkati jox leen kon yëg boobu ti mus ñoo daje ak moom ba moon ñu benn kàddu boo xam daal eh, xaw naa naqare suñu xol ndax nag ñoo fi gën a gaawu fippu loolu ah xam naa ne duma ma si nett la am na mos xewoon na fi ñun ku ñu ku ñu cof rek ñu ubbama la nga daanu ku ñu cof ñu bàyyi la respecté nañu ñaari ñetteelu mbir ba mooy li ma waxoon ku dëggu ci kàddoom la moom tibb abdatim ndax dafa ne woon su ma fi toogee day lépp lu ñu leen daan defal su ma ko yokkulit duma ko wàññi bi mu toogeeg léegi lépp lu mu digg woon ak imaam def na ko lim fi fekk waxuma la ak triplé waaye bu ko cadre nag maanaam ful na ko ay yoonu yoon ci wàllu ndimbal luy jóge ci mairie bi di argent liquide imaam yi mosuñu ko am boole boog ñaari imaam ko am ñetti imaam mais argent liquide boo xam day jóge ci mboolem euh, ci administration ci mairie bi ñëw si imaam yi nga xam ne lu dee dee tey bu ñu dajaloon téeméeri imaam kenn ku ne mën na si amum xar bu cent mille kooko yaakaar ne na loola ndimbal la ñaareel ba mooy koor gi jotee dana dana génne ci kii euh, xaalisu maire bi jëndal ñu ay ay ceeb dégg boole kook suukar jox ñu bokkul ak li nga xam ne moom la fi naar yi indi moom lañ ne daan jox moom la fi naar yi indi mu duñu ko jox muy pañ ménagère bi nga xam ne moom dañ koy joxe kooku Ablaye Timbo danañu ko defal dégg nga euh, ni ko noonu tam bokk na ci li nga xam ne tax na ñu kii ko tam xarit gi ba bi yées yi mujj tam xarit bu ñëw danañ jox 32 ba fanweeri nag ak ñaar ñoom imaam yi fanweeri nag ak ñaar tam xarit bu ne dañ ñu ko jox daaw moom dafa dafa ëpp daaw trois cent soixante-quinze mille lañ jox waaye ren euh, euh, ñaari commune bu nekk ñaari nag lay am kon loolu tim ndimbal la loo xam ne wax dëgg yàlla imaam yi duñu ko fàtte dégg nga su ko defee ba ci weeru muharram bi foogoo nañu ne daaw ren difficulté yi am ci wàllu commune bi commune bi dana ko wàññi waaye wàññiwu ko mbir mi Kër Massar euh, Kër Massar bi ñu ko hérité euh, kii euh, département mënoon na ni Kër Massar bokkutuñ ci waaye keroog bi ma nee Massar waaw tey nag comme yéen tàggali ngeen ndax Kër Massar day bokk ci ñi nga xam ne ñoom ngeen di jox mu ni Timbo nee na xàmmeewul Kër masaar ak fu dul Kër Massar Pikine la xam Pikine yëpp ay jël fu fi doomu Pikine nekk ba tax na mboolem cinq commune Kër Massar yi teew nañu fii bokk ci li nga xam ne moom la ñu joxe woon ci nag yi passé teew ci jataay bii kon moom amul frontière li mu waxoon ne man doomu Pikine laa Pikine laay sagoo su ma sañoon lu ma am def ko Pikine kon loolu firndeel na ko bu ñu fa jógee bourse bourse yi nga xam ne moom la maire di joxe yéen ñëpp gis ngeen saa yu at bu jot maire dajale fi ay nit maanaam ay doom suñu doom yi nga xam ne tubaar fakal la masalaw seen jàng xereñ nañ ci ñu jox leen ay cadeau yu baax ñi ñëpp teewee nañ ko ñenn ñi mu jox leen ay bourse étrangère ñu dem jàngi ñenn mu jox leen bourse yoo xam dañu koy jàngi fii ci local bi yaakaar naa ne loolu booy bàyyi na ci xel imaam yi bu baax ndax dafa ne yéen dama leen di jox quota ndax mën naa am léeg-léeg day xew ci du ngeen ko yëg kookoo tam ñoo koy sant di ci gërëm ñaareel ba tam bu feebar jàngoro yi am maanaam problème yi nga xam ne moom lañu koy soumettre ci wàllu suñu digganteeg suñu njaboot bàyyi na ci xel lool lool lool lool kon looloo tim yaakaar naa ne bokk na ci li nga xam ne eh, eh, eh, imaam yi citoyen lañu comme tout le monde ni ñëpp war a gërëme kon lañu war a gërëme ndax it noo bokk dëkk bi ñoo bokk réew mi su ko defee kon su fekkee ni nit defal ne loo xam ni ci coobareem la ko defee waaye liggéey réew mi war nañ ñu ko jëf sant nañ la gërëm nañ la kon ñoo ngi sant Timbo di ko gërëm di sant staff bi mu àndal waaye jiital sama taar ndax it moom bañ na ko ba najaay la ñuy wooy wala papa amu si benn imam bu mu lee bu mu lee sàllaloo te amuñu benn yoon boo xam ne mos nañu daje ma taal mu wan ñu kanam joo xam ne wax dëgg yàlla te it wax dëgg nag lu mu na lu mu metti metti nag loolu rek mu am kon moom it fu ñu sante Timbo sant ko ndax taxawaayam ndax bu ñu respecté wul woon kat ñoo fi gën a gaaw a jot suñu bopp équipe yi fi jiitu xam nañu ko kon dañuy wax ne bii euh, Kër Massa bii Pikine dee Pikine ba léegi ci li nu fekke ci li nu yëg L'IFI fi euh, Abdoulaye Timbo def ci réalisation ci walu social jëmale ko ci nit ñi surtout jëmale ko ci imaam yi parce que ñom ñaa gëna a maîtriser seen mbir te ndax lepp sama loxo lay jaar yëgguma ko ko fi def amna naa yaakaar ne mën na am nag am ñeneen ñu ko comme ni ko mbokk mi waxe yàlla am na lu baax a baax am na ñu am na ñu gën Timbo am na ñu gën Matar waaye comme ñoo gunti ñun kii ñu nekk moom moo nu gënal nu ñaan yàlla moom mu téyel nu ko fi waaw comme moom moo nu gënal moom te xamuñu lii ñëw suba mu téyel nu ko loolu la ñuy ñaan président di ko ñaan mboolem mbooloo mi mu téye ko fi ndax kat borom borom yi la borom yi baax la te it nag di làmbatu ba daj lu duun nga di ko fa xeet naan dama koy bàyyi fii dama daa am lu ko mën ngaa daj ci loo xam ni dootoo xam foo ko jëmee kon mbokk yi mbokk imaam yi lii mooy li nga xam ne mooy kaddu imaam yi yu département bu Pikine nga xam ne lu néew néew bu nu matul junneet eh, jege nañu ko fii ba Kër Massar noo ngi saluer jataay bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla defal ci tawféex suñu euh, nit kii nga xam ne moom la nu bëgg ñu fal ko ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom mooy fal di folli yàlla na bokk ci ñi muy fal yàlla na bokk ci ñi muy fal yàlla na bokk ci